journaliste la nañu fàttali quand gis nga réew mi ñun mënuñu di wax lu normalul ci état wax lu normalul ci administration wax lu normalul ci éducation ci pétrole ci santé mais mu am ay secteurs yoo xam ne kenn du ci wax parce que tamit média service public la Bougane moomul Youssou Ndour moomul fréquence bi Sénégal la moom moo tax état mooy joxe fréquence teg ci cahier de charge service public d'information de communication dafa am donc du lu nit moom di ci def lu ko neex à partir de ce moment ni ma mën a dénoncer parce que Sénégal dafa am benn stratégie de de truc bu ñu bëgg a poser ba nga xam ne day am des zones de non droit yoo xam ne kenn du ci ñeme wax un service public de l'information dafa war a informer le, le peuple sénégalais loolu moo tax ñu jox leen licence bi te loolu la cahier charge bi wax ni mu valable ci Sen TV la valable ci keneen valable ko ci RTS ba nga xam ne suñu impôt déjà yéen ñëpp dangeen ngeen di jot suñu subvention impôt sénégalais la da ngeen di jot subvention. kon daal règlement donc mun leen ko jot ba pare bëgg a selon euh, les circonstances wala kii joxe na xaalis bu bari wala pouvoir bi laa àndal wala kii daf maa menacé ngeen bëgg a traiter information bi mu leen neexee ni ñuy dénoncer leneen la ñuy dénoncer loolu donc à partir de ce moment débat la ñu posé. j'ai dit j'ai pas de problème avec les journalistes de quelque organe que ce soit sama yoon new ci journalistes yi mais suñu nee tel organe sur instruction du patron ñu ngi censurer telle chose dinañ ko dénoncer li ñuy dénoncer leneen parce que man mi samay mbir su ma defee lu dul yoon dañ ma lii du yoon